Ganji Touré ana Tooro day ana Haalpulaar yi alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina wa mawlana muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam eh, ñu ngi ñaan kenn ku nekk ñu fas yéene def fatiha benn yoon salaatul fatiha ñetti yoon yaa salaamu juróom ñeenti yoon yaa Latiif juróom-ñeenti yoon ñu fas yéene ñaanal sunu président bi yal na ko yàlla aar ko waaye ñu fas yéene ñaanal sunu réew mi yal na ci yàlla jàpp indi jàmm yal na yàlla fay bépp seytaane ku nekk ci sunu réew mi yal na ko yàlla fay eh, fay ko ci ndox mu ci barki yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam وسرنا وامورنا مع راحه قلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا ونمس على وجوه اعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا ولو نشاء للمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا على ارجلهم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 depuis Dira Maga Traoré depuis le Gabou depuis Kansala Sénégal ak Gambie par l'histoire par la géographie par le sang ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu ñëpp xam nañ ko. léegi nag dañuy daal di bëgg ñëw nag dugg ci biir waxtaan wi kan la ñu jox kaddu gi ñu ngi jox kaddu gi un ancien député coordonnateur de l'APR en Gambie monsieur Gori Ndiaye mu ñëw nuyoo dalal gan ñi ñu doog dugg ci waxtaan wi monsieur Gori Ndiaye. léegi li may laaj mooy président. yow foo ñuy jëmee président Macky Sall yow ñu jëmee man de dafa joguma jóg te lu mu ma mos a wax def na ko xam ngeen école bii ni meloon bi ma taxawee ne ko président école bi laa campagne mu ne ma dina ko def na ko lu mu maw def naa ko président jërëjëf ndax kat boo amee kilifa lum la wax def ko boo doosi sig booy dox du ta doo taraf xam ngeen ne liggéey bu rafete nii président lii amul Fatick lii amul Fatick de amul urur bu ma de waaye nag amul njuum bon yéen sénégalais de Gambie da di war di yuuxu fanaan di yuuxu ndax xam ma fu ñuy jëm ku mel ni moom dootuñ ko am ku mel ni kii dootuñ ko am lan moo tax néew na wax bari na jëf moo tax ku mu yar ku ko roy nga mel ni moom moo tax may jéem a mel ni moom te mënuma ko président man li may bëgg a wax mooy boo nee wow na ñu ne wow na boo nee ñuul na ñu ñuul na boo nee weex na ñu ne weex na boo nee xonq na ñu ne xonq na man ak yow ba abadan billaahi su ma la gisatul dootum ko ndax duma am séeréer xamul wax mu dey li tax na nga ko parce que kaa séeréer si taw noo kaa haal bula saa ji ñawat seeɗa kono aan caggal kaa séeréer kaa fatignaajo alaa kulli haalin maa way noon docteur Cheikh en Oumar Anne min ngoowondiraani kono mbiɗa anndi kaa a mbiɗa ka tinniɗo sama ambassadeur fokk ma si ci ndax xam nga lan moo tax ambassadeur bu senegal fii ñu nekk nii nii nii yaakaar naa ne kayit yi reeroon nañu grâce à moom moo tax ñu jotaat jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf li may jox kàddu gi mooy kan mooy le député Birane Sakho mu ñëw président da yëg nii Gambia mu ngi may jàmm ñu ngi lay seede ni ñu ngi am jàmm fii ci Gambia ñu ngi nuyu ministre honorable Tangara di nuyu ministre Cheikh Moran di nuyu ministre yi ci toog ñëpp di nuyu ambassadeur El Hadj Bassirou di nuyu maire Gambia di nuyu mboolem ñi fi di nuyu ressortissants sénégalais yi ñu fi nekk ñëpp kontaan ci lii nii parce que lii yàgg nañ ci taxaw waaye taxaw bi sottiwul ba yàlla def nga ñëw fii 2018 ñu waxtaan ci ASEC wax ne nañu jàkkaarloo ak yow ñaan la école bi nga tabaxal ñu keroog buñ la ko waxee da nga wax ni na mel na école bi taxaw na am ñi nga xam ne dañu wax ni président day politique rek lii moom xam nañu ni moom waxu politique la ñu ne ko président Macky Sall lépp lu mu waxoon jéem na ko te sotti na alhamdulilah tey école bi taxaw na bu baax kontaan nañ ci parce que école sénégalaise école sénégalaise la yi nga xam ne suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon ñoo taxawoon ba école bi taxaw taxawal ko fii 1972 yàlla def di dox di dox ba ñu am lycée 86. te ñoom ñi nga xam ne ñu taxawoon foofu ku ci nekk mayoon nañ ko foofu kër terrain bu mun a mun a tabax waaye ñoom ñëpp dañuy wax ne baal lañu eh, école sénégalaise lycée bi ku ci nekk amoon naa ku mel na Alaaji Cheikh Diop ku mel na Salim Keba Aydara ku mel na Adama Soumaré ak ñeneen ak ñeneen wax dëgg yàlla li nga def li sëmbal la ci ñun parce que bi ñu ko waxe nga dem ñetti weer sëñ Bay Sam ñëw bi mu ne président su fekkente ni yéen ay client ngeen da ngeen xam ne seen président mooy seen seen avocat parce que bi mu jógee fii dafa wax ni dama bëgg ngeen tabaxal ma lycée euh, école école bu Banjul bu Tabakoro mu ñëw fii ànd ak délégation bu tëb bokk nañ ci ki nga xam ne euh, xar euh, xarajatu Diallo bi nga xam ne moo nekkoon iyaabu Kaolack liggéey fi liggéey bu rafet ñu ngi sant iyaabu Kaolack liggéey nañu fi liggéey bu rafet si suñu doomu gujaa boobu jo joolaa boobu ñu ngi ko sant bu baax wax dëgg yàlla président luñ lay mën a wax yaa rey xool parce que ñun école lañu la laaj yow yow université nañu tabaxal wax dëgg yàlla da nga rey xool teram école lañu la laaj li nga tabax bii ku fi romb dana wax ne lii université la wax dëgg yàlla lii nag taxawaay bi bi nga xam ni El Hadj Bassirou Sène taxaw na ci bu baax parce que dossier terrain bi dafa amoon problème waaye bu mu ñëwee fii 2019 wax dëgg yàlla def ci taxaw bu baax euh, taxaw ci kayit yi génnee ci xaalis taxaw ci kayit yi bu baax baax yàlla def kayit yi yëpp taw xaalis kayit yi mu tegoo daanaka ñu ñëw ñu tabax ko fii tabax bii mooy wax tabax bii dafay wax ku xool tabax bii na dafa ne tabax bi maa ngi wax maa ngi wax sama bopp wax dëgg yàlla lii amuñu lu ëpp lii Cette cérémonie constitue pour nous, communauté éducative, une occasion de saluer la vision du chef de l'État et de magnifier les efforts et les énormes investissements consentis dans le domaine de l'éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce bijou modèle confirme encore une fois votre ferme engagement à promouvoir un système éducatif équitable, accessible et de qualité. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui traduit vos préoccupations pour un Sénégal émergent, ouvert à l'Afrique et au reste du monde où il fera rayonner son leadership. Nous voudrions ici saluer les initiatives majeures que vous avez bien voulu prendre pour améliorer votre politique éducative, à savoir l'introduction du numérique dans les enseignements-apprentissages, le téléenseignement, le programme de réduction des abris provisoires, l'octroi des tenues scolaires à tous les élèves du préscolaire et de l'élémentaire du Sénégal, le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de l'enseignant, la promotion des séries scientifiques avec le concours Miss Math, Miss Science, le recrutement récent des 5000 enseignants et tout dernièrement la revalorisation des salaires des enseignants, etc. La liste est loin d'être exhaustive, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République. L'école élémentaire sénégalaise de Tabacoro a formé beaucoup de cadres gambiens et sénégalais servant aujourd'hui dans l'administration et les grandes entreprises. Mais depuis presque deux décennies, elle était dans un état de délabrement très avancé. C'est dans ce contexte que vous avez pris en charge le souci de la communauté sénégalaise vivant en Gambie en reconstruisant cette école vieille de plusieurs décennies. La reconstruction de l'école de Tabakoro s'inscrit dans votre ambition de bâtir une école de qualité, gage d'un progrès économique et social durable. Cet investissement considérable aura certainement un impact positif sur la qualité de l'éducation et de la formation, mais par conséquence sur les performances des élèves. Accueillant plus de 17 nationalités africaines, asiatiques et européennes, Les écoles sénégalaises de Gambie constituent un outil d'intégration régionale et sous-régionale. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour remercier Son Excellence le Président de la République sœur de la Gambie, M. Adama Barrow, qui attache également une importance capitale au bien-être et à l'éducation des enfants de son pays et qui, par ricochet, encourage considérablement le Sénégal à poursuivre ses efforts dans de l'émergence. Excellence, vous êtes partie de ces hommes que les Mandingues appellent les Silatigui. Les Silatigui, c'est des maîtres de sentier. Sentier avec S-E-N-T-I-E-R. le Silatigui, c'est quelqu'un qui plante des graines de lumière pour illuminer la traversée de l'existence de ses contemporains et des générations à venir. Excellence, avec ce que vous avez posé comme acte en tant que président, je pense que vous représentez une source d'inspiration pour tous les dirigeants africains. Excellence, le président Adam Barrow ne cesse de nous le dire. que entre la Gambie et le Sénégal, nous représentons une nation avec deux États. Et je pense que cette école est une belle illustration de cette fraternité et un bel exemple d'intégration africaine. Excellence, je vous félicite et nous prions que le Dieu Tout-Puissant continue de veiller sur vous afin que vous continuiez à servir le Sénégal et l'Afrique toujours dans la dignité et avec beaucoup de fierté. Excellence, je vous félicite. Je tiens aussi à féliciter Aladi Malik Bass parce que Malik, au-delà du fait que je suis ministre des Affaires étrangères, j'aurais dû être présent, si je n'étais pas invité, parce que c'est un jeune frère, un ami, un voisin. Et je tiens aussi à féliciter l'ambassadeur Bassir Hussein parce que je sais qu'il a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans la construction de cette école. Ça, ce n'est pas un terrain facile parce que c'est un terrain argileux. Et je la pression qui a été sur Mali, mais a été à la hauteur de la tâche. Félicitations, jeune frère. Sur ce, je vous remercie, Excellence, pour m'avoir donné l'occasion de représenter bon, le président Barreau, mais aussi d'être là devant vous et de vous assurer toute ma fierté à travailler à vos côtés. Merci jërëjëf monsieur Mamadou Tangara ministre des affaires étrangères wax au nom du président de la république monsieur Adama Barrow. léegi nag xam ni ñaari réew yi dañ ci dellu ci kanam depuis depuis Djinan Magal Traoré. depuis le Kabou depuis Kansala Sénégal ak par l'histoire par la géographie par le sang ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu ñëpp xam nañ ko. le ministre que de réaliser de l'État pour un coût de 540 millions de francs CFA. L'ouvrage, nous le voyons ici, est bâtiment principal R+1 comprenant 15 donc trois pour le préscolaire, un bloc administratif, une salle informatique, une loge gardien et deux blocs d'hygiène séparés pour filles et enfants et garçons. L'architecture de l'école a été conçue et réalisée pour s'adapter aux contraintes climatiques avec un excellent niveau d'aération que nous avons constaté. mais également c'est un bâtiment qui répond aux meilleures normes de sécurité et de sûreté. Monsieur le ministre, je suis heureux que ce protocole que vous m'avez présenté déjà hier soit réalisé ici à Banjul. Aussi, je me réjouis de cette nouvelle école qui est écologiquement durable parce que l'un alimenté par l'énergie solaire. Je salue sa vocation d'intégration africaine puisque 934 élèves de 17 nationalités fréquentent cet établissement. Je félicite le ministre Cheikh Omaran ainsi que toute son équipe, monsieur l'ambassadeur Serigne Bassirou Sène qui est la relation entre les deux pays. Bassirou Trouella, mes félicitations. Je voudrais également féliciter l'ambassadeur, secrétaire exécutif du secrétariat sénégambien. Permettez que je remercie l'entrepreneur, M. Bass, qui a travaillé dans des conditions exceptionnelles et qui a livré le chantier dans les délais. Merci également à Madame le maire de la ville de Banjul, Mme Rochimari pour son aimable collaboration qui a facilité l'exécution du projet. L'entreprise, je l'ai dit, c'est Creston. Bravo base pour la qualité des travaux et j'associe la CES qui également a réalisé la réhabilitation du lycée et des écoles primaires et scolaires du Sénégal à Banjou. Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la direction, enseignants et membres du personnel technique et administratif, chers parents, chers élèves, votre doléance est aujourd'hui satisfaite avec la promesse tenue de reconstruire entièrement votre école. Votre bijou est désormais entre vos mains. Je vous recommande d'en faire bon usage et d'en assurer un entretien rigoureux, régulier pour le bien des générations actuelles et futures mbokk Banjul inauguration bi mooy jeexal suñu séjour tey fii ci Banjul ma ñëwoon wuyu sama xarit sama rak président Adama baro ñu ñëwoon def li ñuy wax conseil présidentiel bu Sénégambie ndax jàppoon nañ ne commission mixte doyul ci diggante ñaari réew yi waaye ci niveau président yi ak gouvernement yi at mu ne bu amul tolof tolof war nañu toog ci bànjul wala ci Ndakaaru xool lépp luy yokk taxawaayu ñaaru réew yi ndax ñoo bokk ndey bokk baay kon nag ah maa ngi koy sant bu baax ndax rafetal na diggante bi te tax na tey jii lépp lu ñu amoon ci collaboration ak coopération tey jii ful na ko juróom wala fukk kon nag maa ngi sant waa Banjul di sant gouvernement bu Gambie di sant président Adama Barrow ak peuple bu Gambie jërë ngeen jëf